الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جهد به وكفر نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن خير الهدي هدي محمد وخير الكلام كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار bokk yi gannaaw bi nga xamante ne jiital nañu yëkkati ay kàddu yu bàq di bàq borom bi nga xamante ne moo bindi asamaan moom moo bind suuf bind la ca diggante ba te loxoy kenn fekk ko ca xelu kenn fekk ko ca pexewu kenn fekk ko ca waaye coobareem la ak bëgg-bëggam xereñam di koy bàq di koy kañ di koy sant ca la tolloog moom borom bi tabaraka wa taala ka mu doon di ciy teg di julli ci suñu sàng muy sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan ci yàlla mu waccel ko yiw waccel ko ay teranga te yiwam ak terangaam pour ñun ñii la ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk njabootam ñooy xeetam salallahu alayhi wa sallam di koy ñetteel yëkkati kaddu yu yoo xamante ne làmmiñ mu ngi ko rootee ca xol ba seede ne amul keneen koo xamante ne bokk na ci moomeelu yàlla ci ñun moom rek mooy ki ñu moom keneen moomuñu waaye jur lu mu fonk lu mu màgg màgg ak luñ ko fonk fonk bokkul ci moomeelu yàlla ci ñun lañu fekk ak way jur mooy jox ko orma jox ko teggin te seddal xolam bu dee nag dëppoo na walla ànd na ak la yàlla bëggu ak la neex borom bi tabaraka wa di séedewaat kàddu yoo xamante ne ci làmmiñ moo koy tibbee ci xol ne sàng boobu nga xamante ne mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu bu mu yëkkati rek yàllaa ko ko wax loo te jottali na ñu nangul ko la ko yàlla jox te mooy ndawam la lépp lu ñu woo rek lu wér la sallallahu الله عليه وسلم ñu xam nag ne jullit amul lu dul alquranul karim amul itam leneen lu dul xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi nga xamante ne moom la ñuy fabriqué di koy fente te yàlla bokkul yonente bi bokk ca yàlla tudd ko yonente bi tudd ko bokk na ci yi gën a yées te képp ku ca topp nag na la wóor ne yaa nga ca réer te ku nekk ci réer nag fam lay jëmee nag koy naaru jahannama yàlla ci yàlla musal ñu delsiwaat ci kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa gannaaw ba yàlla wàcce ci alquranul karim ne laha sabaatu abwaabin ne gis nga jahannama ak la fa mën a nekk ak la fa mën a nekk ci mbugal ak ci toroxtaange sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ci misaal bu gàtt ne lu toll naka puso la muy bënn ca mbuus walla ca saaku nee na lu toll ca bon bon boobu noonu bu bonnoon ca safara bon bon ba feete si ci kaw suuf nee na suuf yëpp ñu faatu ngir xet bu nakar ba nga xamante ne mooy bàyyeekoo ca safara kon béréb la boo xamante ne bérébu toroxtaange la béréb la boo xamante ne bérébu coono la béréb la boo xamante ne bérébu mbugal la waaye yàlla nee na nag préparé wu ma ko lu dul uiddat lil kafirina dina na maa ngi ko préparé ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi muy juróom-ñaari bunt alquran tudd ko laha sabaatu abwaabin juróom-ñaari bunt moom la safara amee alayhi salaatu wasalaam yàlla yóbbu ko ca rañaan ba mu dem gis lépp ñëwaat dem gis aljana dem gis safara delsiwaat ñëw wax ak ñun moo tax giiru dundam mënu koo jeexal la mu gis ca guddi boobu alquran ne laqad raa min ayaati rabbihi lkubra la mu gis ci ay kéemaan ci guddi boobu kenn xamul li mu toll yonente bi li mu desal ci giiru dundam li mu defaloon gannaaw ba mu demee ca rañaan ba ñëw muy fukki at ak ñett doora sàngoo sangoo suuf jéem na ba tey pour jeexal la mu gis ca guddi ba te jeexal ko moo tax léeg-léeg bu toogee rek mu ne raaytu laylata usriya bi bu toogee tuuti rekk ne gisoon na keroog guddi ba ma yàlla rañaana la mu mel ni kon guddi boobu lépp la gis la nekk ca buntu aljanna ak la ca buntu safara mu wax ñu lépp nag gannaaw ba yàlla waxee ne juróom-ñaari buntu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ni dinaa leen wax lan lañu bind ca buntu yooyu la fay dugal nit mu ne ñu ijtanibu as-saba al-mubiqat wattandeku leen juróom-ñaari yi nga xamante ne ay bakkaar la benn bu ci nekk rek dafa mel ni ndëgg sarax ndax pour dem ca aljana da ngay romb ca safara te yàlla ne na wa in minkum illa waariduha amul kuy dem aljana te jaaruloo fa problème bi kay mooy ña fay des ca diggante ba waaye yàlla na ñu jàll keroog mu doon juróom-ñaari ndëgg sarax yoo xam ne benn bu ci nekk boo ca déggaatee rek fam lay jëmee mooy benn ca juróom-ñaari safara yooyu sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàlla fayal benn bu ci nekk mu tuddal ñu ko leeral ko pour ñun ñu wattandiku mu ne nag ijtanibu ndax dangay dem tey jii ci yoon code de la fépp foo xamante ne yegsi nga fa rek daf lay defal signal ne fii moytul de wiiraaf la fii moytul fii dafa xat wala fii moytul doo daan la boo respecté nag yooyu ñu la defal ci ay signe ci yoon bi dangay ngay yegg ci jàmm fa ngay dem ak sa waruwaay waaye boo ko respecté wul nag boo moytul sa bakkan say du del si waat ci sa kër ndax mën ngaa dee ci yoon moo tax yonent bi nag defal ñu loolu nag defal ñu ci ay pano defal ñu ci ay signal loo xamante ne moo koy signalé ne lii moo fi ne fii buntu safara la ba muy juróom-ñaari mu tegal ko ci suñu loxo sallallahu alayhi wa mu ne moytu leen juróom-ñaari bakkaar yii ndax benn bu ci nekk rek boo ca déggaatee ca safara nga jëm xaalu ñu ne ko ya rasulallah wa ma hunna yooyu mooy yan pour ñun ñu war koo wattane ko en tant que jullit moom mi dem bi dem gis safara moom yenente bi bi mu ñëwee foxatu te masul fox dafa mas a fekk saxaaba yi di reetaan sax mu ne leen wallahi law taalamuuna maa aalam e eh, bu ngeen xamoon bu ngeen gisoon li ma gis xam li ma xam la dahiktum qalila wala bakitum kathira nee na da jooy lu yàgg te da ngeen reetaan lu neew kon moom mi dem gis nag ñëw safara du caaxaan yàlla ci yàlla musal moo tax saxaaba yi ne ko en tant que jullit ne ko wax ñu yooyu ñun tam ñu mën koo xam ndax gis nañu yow ba nga ko gisee nanga nga wottande mooy yàlla nanga nga bakkaar yooyu kon wax na ñun tamit ñu mën a xam ba mën a wottande ko yooyu yonente bi ne leen bu njëkk ba ne mooy ashirku billah mooy bokkaale yàlla lan mooy bokkaale yàlla mooy jël yàlla tongale ko ak mbindaafoon comme yow léegoo léeg mu doon xeer boo tabax defar paase nañ ko mooy xerem yi ñu doon tabax di jaamu waaye léegoo léeg mu doon àdduna àdduna ci bopp nga def ko di koy jaamu boole kook yàlla bu la yàlla wooye àdduna woo la nga dem ca àdduna kon yaa ngay bokkaale yàlla ca àdduna léegoo léeg mu doon alal léegoo léeg mu doon sax nit comme yow nga gis jëkk jabar joo xamante ne fa mu teg jëkkëram tegu fa sa yàlla yàlla dina ko woo du ko wuyu ji te añu jëkkëram nag dina ko toppatoo te juróomi waxtu yi benn la ci joxul yàlla te añ tardewul ndekk tardewul reer tardewul kooku mu ngi bokkaale yàlla ak jëkkëram te yëgu ko moo tax yonente bi nee na shirku ñaar la dafa am bu fes am boo xamante ne dafa nëbbatu mu ne ba gën a nëbbatu nag moom laa gën a ragal ci yéen bee moom xeex naa ko ba daanu na taxaw di jaamooti xërëm di koy sujuudal kooku pare na ci yéen waaye yii nag mu tudd mooy jël nit comme yow wala jël sa bakkan afarayta man itaxada ilahahu mu ne hawa léegoo-léeg nga jël nit ba jamono sax léegoo nga jël sa sëriñ sa teg ko ci palaasu yàlla te yàlla mom xejalul kenn ci bosam même rasulillah sax yow yonentem nga waye bokkuloo ci samay jaam laysa laka min al amri shay'un la yàlla wax yow muhammad ak lo mag mag baye mag samay jaam bul tek jema tek sa bop place bo xamantene dana danañ la yemale ak man yàlla masu ko nangu kon shirku billahi bi ci gëna bari tay ji ci jamono mooy nga jël nit comme yow wala jël sa bakkan bi wala nga jël àdduna wala alal yemale ko ak yàlla kooku bokk na ci ni yàlla gën a bañ nga dem ci alquran mu ne innahu damiru sha'ni la man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla naxantewul ak kenn aljanaam bi naxantew koo kenn te li mu bind dafa bëri te li ko nangul dafa bari kon yow boo bàyyee yow yaay perte yàlla nag ne ku ma bokkaale ak leneen aljanna moom doo fa dugg kad harrama allahu alayhi aljanna aljanna haram na ci yow bokkuloo ca ña nga xamante ne xet ba dina leen laal sax ci beneen laaya mu ne inna allah harramahuma ala alkafirina kon ku yeboo wëttande ku bokkaale yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a toog benn bés ak sahaab bu ne ndax bugg leen ma wax leen li gën a rëy ci bakkaar yàlla ngeen ko bañ ñu ne ko aha mu ne ashirku billahi jël yàlla di koy boole ak leneen ak lu manti doon même bu dee sa waay jur sax mu ne wa in jahadaaka ala an tushrika bi fala tuteehuma dundal ak ñoom ci jëkk na waaye nag boole leen ci sa bopp nag comme man yàlla ni ma la moomee kooku moom bañ ma ko kenn ñaareel ba mu ne nga bañal sa ñaari way jur ñetteel ba mooy ngay wax loo xamul mu mel ni ñett yooyu sallallahu alayhi wa tudd na ko ne moo gën a rëy ci bakkaar yi kon nañu wottandeku bokkaale yàlla te yonente bi wax na ko ne léegoo léeg dafa nëbbatu bi doo ko yëg kon nañu wottandeku shirk billah li yàlla di baale boobu bokku ci yii ñëw sax mën na ko baale waaye bii moom mu njëkk a tudd kooku moom yàlla du ko baale bakkaar boo manti def yàlla mën na koo jéggal inna laa yaxfiru zunuba jamia waaye nag ba mu des nag bokkaale inna laa laa yaxfiru an yushraka bihi yàlla ci yàlla bo musal ñaareel ba mu ne mooy as sihr boo ca tegoo rek mën ngaa dugg ca safara ca juróom ñaari bunt ya mooy mooy njëbër ñi di koy tuddee rek liggéey ci jamono am ñoo xamante ne ñoo koy def di tuddee seen bopp maa man te yàlla mooy ki man ñooñu safara lañu jëm ndax yéeféer lañu waaye itam kay dem ca ñoom di koy fay liggéey lu itam safara lañ jëm borom bi tabaraka wa nee na li ma bind mu gën a yées te mooy seytaane yi nee nag kenn rek la ñu xaritool hal unabbiuka ala man tanazalu shayatin yow Muhammad bugguloo ma wax la seytaane mooy ñi ma bind ñu gën a yées ñan ñooy seen xarit mu ne tanazalu ala kulli afakin asim ala kulli afak afak moom mooy jëbërkat as saaxir yàlla tuddee ko fenkat kon moo tax njëgër bokk na ci li gën a yées ci bakkaar ya kon ku yeboo wottandeku njëbër sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dem ci njëbërkat toog ak moom rekk mu wax nga dégg la mu wax nga téye ko ne na na la wóor ne maag yow Muhammad dogoo nañ lan moo jar ngay dogoog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp kuy def njëbër wala ngay dem ci njëbërkat léegoo léeg jigéen ñi di dem ne sama sëy nii ak nii dem di nopp sa borom kër léegoo léeg góor ñi di koy def ñëw kese di yàkkante ne na ku ko def bu yomal kiyaamati jotee na ko wóor ne buntu safara ubbeeku na di koy xaar yàlla ci yàlla musal ñetteel ba mu ne mooy xatlu nafsi mooy rey nit wala rey bakkan bokk ci gàttal waxul qatlul insaani qatlul nafsi la wax rey bakkan léegoo-léeg nga xeeb ko nga ne melentaan bi ay melentaan rek wala weñ rek est-ce que mën nga koo defar moo tax ca xadis ba yonente bi nee na adduna bu ñu daje woon ak waa asamaan rey benn bakkan yàlla mën na caa teg dugale ñoom ñëpp ci biir jahannama saxaaba yi téye seen loxo yi benn bakkan yàlla dugal ñëpp ci biir safara ak waa asamaan benn bakkan rek yonente deme ndax mën nañ koo defar ndax mën nañu defar bakkan kon même rab yi mala yi sa bàyyi ci xel sallallahu alayhi dafa wax ci hadis ne bu yowmal qiyaamati jotee nee na dañuy toog ba ñu dégg sabu bu rëy dawiyun ka dawiyun nax la nee na mu nga fees asamaan ba ñu nekk ca arafaatul qiyaamat yépp tiit waaw lan mooy li xew xiin bii lan la nee na benn picc benn picc de kon dikkatee bakkan oyoful nee na benn picc moo ñëw joytu ca yàlla moo nekk riir bu rëy boobu noonu ñëw ba tong ci yàlla ne yow yàlla mu ne ko naa mu ne ko diw sàngam moo ma rayoon ca àdduna te defewuma dara kon kuy dem bay rey picc xalaataatal waaye est-ce que mën nga koo defar na doon ne danga koo soxla yàlla may la ko nga war a mën a dundee la ngay rey nga dare ko pour dundee ko lu dul la ca yonent bi sala sallama tànn ñu tuddee leen alfawaasiq yonent bi nee na boo demee ca Kaaba ja sax mën nga leen fa rey lu mel na ka jaan lu mel na ka jiit lu mel na ka janax yooyu nga xamante ne dafay lore yooyu mën nga leen a rey kooku dala du ci fekk waaye même melentaan sax dañ la wax ne bu la mattee waaye bu la mattulee sax bu ko rey mbott bu ko rey lu mu la def lépp loo xamante ne yow ci sa bopp soxlawuloo ko pour dundee ko yàlla mayu la pour nga rey ko boo ko reyee dañ ko la yow moom moo tax alquran doon téere bu leer nañu waxul ne wa qatlul insaani wa qatlul nafsi la wax ndax la nga gis ba rey ko est-ce que yow ci sa bopp yaa ko bind ba teg ko fa ki ko bind bàyyi ko ko kon moo tax fexeel nga bàyyi xel bakkan bul di tëba tëb rek di rey bakkan bés boo xamante ne rey nga nit nag alquran nee na wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam te xoolal tey jii ci jamono ni mu bare ne dana rey nit rek ngir alalu aduna fukki junni rek wala jël ben 5000 rek ñu xiccoo ko rek mu génne paaka ray ko wala mu génne fetal ray ko ci jamono li xew wala alalu aduna nga xamantene yow da nga dé bayiko fi nga ñëw ànd dugg ci ben kër ray borom kër ga jël alal ja yóbbu yàlla né na ku ray bakkat bakkan bo xamantene ne seede ne anna la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla ne fa jazaauhu la ma koy fay jahannama mooy jahannam ñu ne ko déedéet yàlla muñal jahannama ëpp na mu ne xaalidan fiha du ma ko fa génnee sax kenn mënu ci daal te wa xadiba allahu alayhi ñu ne ko yàlla muñal mu ne déedéet mere naa ko maag moom jeex na wala anahu ŋaññ na ko du amati jàmm kon amul lu jar rey nit ak lu la nit man di def ak loo mën a fekk ak moom bakkanam moom bu ko kiamati ndax pare sallallahu alayhi wa ne yowmal qiyamati bu fekkee ne da ngaa rey nit jël nga palaasam ca safara kon bu naroon safara yenu ibne adam kenn ka ne anta abi ismi wa ismika boo reyee nit ak bakkaaram jeex na na la wóor ne ka nga aljana la te bu demee aljana nag yow foo jëm mooy safaan bare rek yàlla ci yàlla musal rabbana ixfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta xayru man zakkaha la ilaha illa anta subhanaka inni إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وكل من والاه kon boobu nekkoon ñetteel ci yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nañ ko wottandeku ñu ngi ko affiché ca buntu safara ya ne fii safara la te mooy rëy nit nga gis na ko olof tuddee moy rëy rëy xam nañ ko mooy lu rëy bakkaar yi yépp mu ne rëy moo ca gën rëy moo tax olof yemale kon ne rëy léegoo léeg nag jël fetel dóor nit jël paaka dóor nit ñu ne rëy na ko nga daw ñu dugal kaso nga foog ne ñooñu la ñuy waxal bari na ñuy rëy nit te kenn yëgul waaye yàlla xam na léegoo léeg nga njëbër nit rëy ko yaa ko rek te léegoo léeg boromam di waxtaanee fa bi tudd ko léegoo-léeg nga jëflanteeg nit surtout léegoo-léeg ci biir sëy yi nga gis jigéen bu rëy jëkkëram bari na am lam ko jox rek mu naan ko rek dee comme ci suñu jamono fii bu dee ci tubaab yi dañ koy gestu bi xam ko parce que am nañu seen laboratoire waaye fii amuñu ko balaa ñu yegg rek dem nañu suul ko xamuñu la ca xew ñun xamuñu ndax yow ko jigéen rëy nga de waaye yàlla xam na ba yomal qiyaama bari na ñu koy def ci jamono ñuy reyante te kenn yëgul waaye nag bu ñu yëgul ñun yàlla yëg na na ko layoo borom bi tabaraka wa taala ba ko ñeenteel mu ne wa aklu riba di lekk alal joo moomul alal bu la lewul yonente bi ne wattu leen te alal léegoo-léeg nga xeeb ne lii def ca tuuti waaye sallallahu alayhi wa sallam nee na ar riba saboona baaba ne na li ñuy tuddee riba juróom-ñaar fukki façon la dañu bëri kon arab bu la waxee saboona mooy lu bëri rek comme ni ñuy waxee rek téeméer ne maa ko mag téeméer yoon waxin la téeméer bu ñu koy dañuy bëri rek alquran bi mu lay yonent bi tam bu lay wax fii sabee na pour walla ne dafa bëri rek yonent bi nee na juróom-ñaar fukk mat na ko walla ëpp na ko sax asgaruha ba gën a tuuti ci riba bakkaar ba ca yàlla di fayee boromam kalladi dafa tolloog bakkaaru ka nga xamante ne yan kiihu yan kiihu ummahu dafay sëy ak yaayam xoolal loolu na mu mel yonente bi nag ne den benn dërëm nga lekk ko te moomuloo ko moo gën a garaaw nga sekk ak sa yaay kon nit na wottandeku dërëm bu moomul te mën nga ñuy indil ñun xamuñu foo ko jëlee waaye yàlla xam na ci beneen xadis mu ne dirhamu riban yakuluhu rajul wa huwa mu ne ashaddu min sittatin wa salaasina zinyatan nee na dërëm boo xamante ne wóor na la ne lewul nga di koy lekk te xam nga ne lii lewul nee na moo gën a rëy bakkaaru nit ki defoon fanweeri njaaloo ak juróom benn ci ay jigéen jigéen yu bokkul fanweeri jigéen ak juróom benn yu nit ki seqal caaxaan bakkaar ya cay joge nee na lekk benn dërëmu nit moo ko gën a garaaw te ñun ñu ngay xeeb dërëm te dërëm la yonente bi wax benn dërëm ñun xam nañu dërëm nga dem nag ba ci téeméeru dërëm wala ñaari téeméeru dërëm nga ne lii ñaar téeméer rek la wala 5000 muy junney dërëm nga ne ah lii benn benn junne rek waaw loo xam xamante ne mën na laa sànq est-ce que loolu war nañ koo xeeb nit koo tàllal ci wetu jaan moo ko gën a rëy waaye xoolal jaan bu matee walla jiit jiit boo moytul sax du tolloog sa loxo bi waaye bu matee rek yàq yaram bi yëpp gis nga benn dërëm noonu la mel daf lay yàq moo tax yonente bi nee na kullu la alayhi salaatu wasalaam kullu min nabata min azuhdi fa naaru awla bi nee na yaram buy lekk riba ba duuf ca yomal kiyamat amul xisaab yëkkati sànni ca safara kon ku yeboo wattandeku dërëm boo moomul surtout dëkkandoor yi te léegoo nag yow ku jigéen gi ngay jël sa alal boo xamante ne sa alal borom kër la nga ne dara nekku ci wala yow ku góor ki ngay jël sa alalu jabar nga ne dara nekku ci déedéet fekk naa fukki dërëm fii ci taabul bi jël naa ko ah ah te léegoo-léeg ñu di koy def fexeel ba wottandeku dërëm boobu moomul ndax bu la yent bi wax dërëm boobu moomul waxul ka dëkk Chine koy jëflanteeg moom bay lekk dërëmam kan nañu wottandeku ak jaamur mooy alalu jaamur yi ba ko juróomeel sallallahu alayhi wa ne wattu ko ak lu maalil yatimi di lekk alalul jirim mooy ku gisatul baay ku gisatul yaay dem na fa ba ci sàmm sax dañ koy wax ne ko na wottandeku loolu nga xamante ne moom mooy béy bi walla xar bi walla nag bi moo gën a bari ci ñun nee na na bàyyi doom ji nàmp bés mu door a rat waaye bu mu ko xañ néewu yaayam loolu dem nañu sax ba fuqahaa yi dem ba yëgg foofu la kon alalu jirim yonente bi nee na bu ko laal alquran gàttal ko inna alladina ñooñu nga xamante ne na ñooy lekk amwaalal yataama alalu jirim zulmante du dëgg innama yàquluuna la ñuy lekk fii butuni muy dugg ca biir ya ñu foog ne añ nañu ba suur naaral nee na safara la ñuy lekk wasa yaslaw na saayiran ci jahannama lañ jëm lii la yàlla wax te léegoo léeg sa mag wala sa rakk bàyyi fi njaboot gaañu bàyyi la njaboot gu sew ga nga jël alal ba yépp xaaki moo ko moom ko ne maa ko doom ya xamuñ ca dara foog ne yaa ko moom xamuñ ci dara xamuñ seen bàyyi li moom ak li moomul képp ku ko def dala wóor ne safara nga jëm te léegoo léeg ñuy xiccoo façon alal yooyu façon doom yooyu nga xamante ne seen papa dafa bàyyi alal dafa bàyyi ay kër dafa bàyyi ay tool ñu ñëw takk seen yaay yu mel noonu ñëw nag gis nga ko xaakimoo alal ja jël ko seeyal ko ci seen moomeel ñoom doom ya mag a xamuñ seen alal ju torox moom yàlla nee na ku ko def alalu jirim ku ko lekk nga añee ko wala nga ndékk wala nga réere ko lu dul ne moo tax mu ne zulman lu dul ne danga ko toggal añam yéen ñaar ngeen togg añ ko walla nga toggal ko ko reer yéen ñaar ngeen togg reer ko bi maanaam yéen ñaar a ko sekk bu boobaa nag boobu yàlla may na la ko ndax li kaa ah mu toog tolloog la nga xamante ne mooy sa coono ca moom ci yar ko ak la ngay taxawee alal ca kon alalu jirim dañ ko wotte takku safara lay jome nit ki ba koy juróom benneel yonente bi nee na wa tawalli yowma zahf bés bi nga xamante ne dem nañu bay xeex ak yéeféer yi ba jàkkaarloog ñoom nga jox gannaaw daw bàyyi ñu fi tawalli yowma zahf war paase wu ko te yonente bi nee na bokk na ci jikkoy naafik ida utumina xaada bu ngeen di ne mu di lay baam ngeen dem ba taxaw ci kanamu noon yi nga xam góor mënatu la daw mu daw bàyyi la fi yonent bi ne na ku ko def jahannama nga jëm tey jii nag nekkatuñu ci xeex waaye nekk nañu ci leneen yoo xamante ne xaw na tolloog jihaad ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy défendre alalam ba ñu rey ko dafa mel ni kuy doon xeex ci yoonu yàlla ba ñu rey ko li leen di kon tey jii nii mën ngaa tollalee liggéey ci sa tool ak loolu le ndax lu lew la nga xamante ne moom nga cay daw waaye nag moom la tere nag julli de ne damay liggéey ca tool ya du ma dem ajjuma jihaad lu mu doon metti metti metti métti jàng nañ ko ci alquran salaatul xawf dañ doon nekk ci digg jihaad bi tey julli xoolal ay jaasi tiimu la te terewul nga dem julli ji yow nag yaa ngi ca doon keppaaru ndarkasu ba ne manumaa dem ne lii tam ci jaamu yàlla la déedéet jaamu yàlla danga koy jaamu fi mu la soxla kon demal liggéeyi waaye bu heure jotee mu ne hayya kaay wuyu si ma kon bàyyi léegi kon heure ba nga nekk ci sa tool mën nañu wax ne yaa ngay def jihaad nga fekk ko ak say nawle yenn a bokk benn yaay yenn a bokk benn baay wala yenn a bekk benn société ngeen dem ca liggéeyukaay ba nga dem korosé say loxo toog ci gannaaw wala fabriqué benn tappale ba demuloo fa kooku itam yaa ngi koy def yaa ngi leen di wor te lépp lu ñu liggéey ca ker nga boo ñëwee laaj sa añ añ comme ñoom reer comme ñoom ndekki comme ñoom nit ñi ñëpp ñoo moom tool yi te li ñuy liggéey ci tool yi yow liggéeyuloo ko noonu nga koy jëlee nag ci lu nekk ci société yaag ci gaal yaag ca lu ne yéen a bokk gaal ga yow defoo daara bu boobaa kooku tam ci wor la bokk te yowmal qiyaamati workat yi yépp yàlla def leen di defal daraapu ne workat yaa ngi ne ba ko juróom-ñaareel ñi yemale ko fa mooy hadis bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nee na kazful muhsanaat al muminaat al gaafilaat mooy di tuumaal nit ci jigéen noonu lañ koy gàttale nekkul di tuumaal jigéen ndax boo tuumaalee jigéen rek ci góor nga ko tuumaal boo tuumaalee góor ci jigéen rek jigéen ma nga tuumaal wate léegoo-léeg am koo xamante ne seetluwul waxam jóg a jor wax benn wax ñu ne ko ah bu dee góor nga sax waaye ku jigéen ka xam wuñ ko ko kon moo tax yonente bi nee na kazful muhsanatul mu'mina mooy tuumaal nit ci jigéen waxuma tey jii bés boo doxoon di dox di dox ci ndogala bi yàlla ba nga ne daret ci kaw bakkaar boobu noonu la nga def subhanallah fan la may yàlla doyadale ba may ngajog lii nga jóg nag dem jéggalu ji ci yàlla lawla istameetumu qultu ma yakun an atakallam bi hada mu subhanaka foofu di nga war sabbal sa borom dem jéggalu nag yow lu tax nga gis ko xam nga kay jéggalu talatul di koy wax keneen te pourtant gis na ko waxuma nag koo xamante ne gisul de mu ne damaa dégg waxuma koo xam ne dafa dégg de dafa foog yàllaa la gën a rëy bët walla te moo ko gis te bu ko neexoon yéebaane waaye mu ne tekk ba ba nga ko gisee sax mu ne la noppil xanaa nga am ñeent yeneen ñett yu la topp ñeenti laa wax ñeent ñeenti seede bu ko nit di jëlee kon tuumaal nit ci jigéen bokk na ci lay dugal nit safara bés boo toogee ba dégg ñu koy wax te bari na ci jamono moom rek la nit ñi di waxtaane boo demee ci rajo yi boo demee ci télé yi boo demee ci journal yi journal yi cay gën a liir ñu di koy jàng wala journal yi ñi gëna dégg moy yu yobale façon bi moy affaire sexuelle rek affaire jins rek mu mel ni nit ñi dañu feebar côté boobu fi mu nekk ni nag manatuñ ko muñee seen bopp waaye fi mu nekk nag ñu ngi koy tafaré fu ne kon tuumaal nit ci jigéen bés boo ko déggee dawal dem xamale buntu safara ubbeeku na ci yow waaye boo ko déggee gën a toog ah loolu di xaw ma ko muy nettali rek te la ca gën a bëri furta du dëkk yonente bi nee na moytu leen di tuumaal nit ci jigéen yéen jigéen ñi moytu leen di tuumaal seen nawle ci góor nga dem ci abu hurairata radiallahu anhu wala abdullah ibn umar radiallahu taala anhuma mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دق يونت بي تي لامي موي واخ نه من قال في مؤمن ما ليس فيه ku wax ci jullit lu nekkul dëgg askanahu llahu radagatal xabaali yàlla dana ko dekkal ci pencab toroxtaange xata yaxruja mimma qaala ba ba muy génn ca la muy wax wa ma huwa bi xaarij nit dafa mën a wax génn ci nit mënul wax baat boobu noonu mu effacé ko xas nga ba jóg moo tax bàyyi la xel ca la ngay wax nga dem ci husayfatu alyamaani mu ne kalful muhsanati yahdimu amala miati sana Huzayfatul Yamaani bokkoon ca saaba ya mu ne nit nga tuumaal ko ci jigéen wala yow jigéen nga tuumaal sa moroomu jigéen ci ko nee na loo liggéeyoon ci téeméeru at lakk na waaw léegi boo amul téeméeri at loo wara a mën a liggéeyaat même boo demee ba am téeméeri at lan nga war a liggéeyaat lu la mën a musal kon mu doon yoo xamante ne yu jar settantu la te bàyyi ci xel yonente bi nee na wattandeku leen juróom-ñaari te léegoo-léeg nga gis jigéen buy tuumaal jëkkëram nga gis góor buy tuumaal jabaram yonente bi waxul ne nit ñi di tuuma déedéet yow lay waxal yow ku góor ko yow jëkkër bés boo tuumaalee sa jabar ci góor na la wóor ne yaa ci biir yaa ngi ci buntu safar bés boo tuumaalee sa jëkkër ne ko yow xaw ma lan nga fekk ak diw te bari na da ngay nuyoog benn jigéen rek nga ñëw rek mu ne am na loo fekk ak kii lu nekk dina ko wax ci sa kaw baat bu ñaaw bu nekk dina ko wax ci kaw jëkkëram ko léeg mu génn këram dem ci beneen moroomu jigéenam di yàbbeeku rek sama jëkkër nii sama jëkkër ni xamul mu ngi saaga ay doomam ndax jëkkëram moo jur ay doomam te duñ jëkkëru diw ci moom lañ koy askane mu ngi gaañ boppam te yëgu ko la war sa digganteeg sa jabar mooy nga sutura ko la war sa digganteeg sa jëkkër mooy nga sutura ko ñu téjee ko ci benn xisa bu gàtt rek cafa ñuy tuddee ordon ca Cham dafa am benn góor goo xamante ne imaam la ca jumaa ja dafa xëy benn guddi rek gis yonent bi ca gént mu ne ko diw sangam mu ne ko xam naa ko mu ne ko boo xëyee nuyul ma ko bokk na ci ñi ma gën a fonk ci gox bi loolu xaw ko touché ndax moom mooy imaam mosul gis yonent bi lu dul tey ji mu di koy yombi te waxu ko ne ko bokk nga ci ñi ma gën a sopp def ko ne ko diw sangam ne ko bokk na ci ñi ma gën a sopp ci gox bii mu daldi woo waa ji ne ko man de dama am mbëkk bu rëy boo xam ne war naa la ko wax waaye dama bëgg nga wax ma lan mooy li nga def ba yegg ci loolu mu nekkoo ci lan mu ne ko balaa ma lay wax nga wax ma mu ne ko ah manuma laa wax te waxoo ma il faut nga wax ma lan nga gis ak lan mooy li nga dégg pour ma mën laa nettali li koy laaj mu ne ko damaa gént yonent bi wax ko gént bi mu jeex ah mu ne bu dee am na de fan yi passé dama takkoon soxna soxna si yàlla dogal maag moom ñu am juróom benn weer rek mu am doom ma tey ci sama calcul ne loolu lu mën a nekk la di docteur yi wax waaye ba ñu yeggee ca hôpital ba ma dal di di préparé ne kon xale bi war nañ ko dugal ci seen case yi ya nga am weer lay doon ba ba muy xaw a tane docteur yi ne ma déedéet loolu jaru ko ndax doom bi juróom-ñeenti weer la am ci biiru yaay ma ne leen loolu manul ne ñu ne ah kañ doom ji juróom-benn weer la am mu ne ma ne teg waxu leen sax juróom weer la am ci biiru yaayam te ñoom ñaar seen sëy mu ngi diire juróom-benn weer kon am na lu faxe bu doon tey jii nii yenn góor ñi subhanallah adduna yëpp yëg ne waaye naka la ñëw xale bu jigéen bi xool ko ñu xoolante xam nañu lan la mu ne ko jox ma doom bi mu jox ko ko mu bàyyi ba dugg ci jumaa mu mujjee ñëw rek teg xale bi ba mu tegee xale bi ñëpp dugg ci jumaa ji di julli xale bi di yuuxu ñëpp génn fi waaw ku fi teg xale bi ku fi teg xale bi mel ni xale bu ñu sànni mu ne jox leen ma ko jox leen ma ko man dinaa ko mën a yar parce que mbokk yi bu ñu ñëwoon heure boobu noonu rek gis xale bu jigéen bi wasin kon danañu xam ne kon am na lu ca xew waaye bëggul sax mbokk yi ndaw si xam la ca xew mu mel ni doom ji def ko adopté waaye nekkul doomu jabaram mu dal di koy yëkkati yóbbu ci biir kër ga mbokk yi xamul ndax seen doom def na lu dul noonu wala def na ko imaam bi ne ko kon loolu nga def moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama sopp la ne bokk nga ci ñu ko génnal ci gox bi lan moo waral loolu mu ne parce que damaa xool ne kii ci njabootu yonent bi maanaam jullit la ma jël ko wéejal ko ci biir ay mbokkam ci biir dëkkandoor yi ba du fi jarati dara boo moytu sax du amati jëkkër mu ne ba ma xoolee loolu xool ne ci njabootu yonent bi la nee na ma suturaal ko kon gis nga ba mu suturaalee njabootu yonent bi te pour pourtant def na bàkkaar yonent bi nee na bokk na ca ñamu gën a sopp kon même sa soxna boo demee ba gis yéen nii sa suturaal sa borom kër sa jëkkër boo demee ba gis ko sax te léegoo-léeg doo ko gis waaye ñàkk loo waxtaanee rek wala sa meru xol rek ngay toog rek di wax képp ku wax ci kaw moroom moromu jullitam tuumaal ko ci wàllu jigéen wala mu doon jigéen nga wax ci sa moromu jigéen ci góor yonente bi nee na yaa nga ca buntu safara yàlla ci yàlla bu sax rabbana ixfir lana dunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما